ki nga xam ne Oustaz Assane Seck mi nekk seen TV daal gars yi ni mujj nañu ko daal waaw nekk seen TV daal am na xibaar arrêté nañu ko parce que depuis bëccëg ba léegi maa ngi information bi ñu arrêté côté seen côté seen waxtaan la ñu mujj ko mi ngi noonu nee nañ am nañ information yu wóor ni kii di Assane Seck Oustaz Assane bi nekkoon seen TV mujj nañ koo teg loxo kenn xamagul nag lu tax ñu teg ko loxo. mooy tege loxo yi nii tege loxo noonu rek ñu ngi